professeur Fary Silate Ka maa ngi ley nuyu. Ah, maa yow euh, yaa yoroon euh, laboratoire linguistique bu IFAN nga jiite itam académie sénégalaise des langue nationales euh, nekk itam président section sénégalaise bu Tabital Pulaku ak vice président Tabital Pulaku international jiite itam li ñu naan commission Fulfulde langue transfrontalière véhiculaire académie africaine des langues nationales bootu ci Union africaine alors professeur ñu am mbégte mu rëy dalal ci euh, waxtaan wi tey matinal bi pël bu dégg olof euh, ñu war a waxtaanee surtout euh, situation wu Mali ay ñaxtu yoo xam ni dafa jëm ci Ibrahima Boubacar Keïta président bi mi ngi fay am jamono yëpp waaye nag ci week-end bi dafa gën a tar Mahmoud Dicko ak ñi mu àndal doon yëngatu ba ñenn ñàkk seen bakkan ñeneen am ci ay gaañu gaañu mu fekk nag Mali ci boppam di dund situation boo xam ne bu doy waar la yow lii yëpp ban jàngat nga ci def professeur. de Fatou mu fàttali rek ne pël bu dégg wolof la. waaw waaye du may pël bu dégg wolof de man jolof jolof la. Ah, <laughs> <laughs> léegi xam nga li xew Mali moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp la def euh, la naqar parce que Afrique yëpp Afrique bépp la naqar sax mais dañu seetlu ne euh, mu ngi mel ni euh, li li li mujj am tey Bamako muy muy ñetti ñetti ñetti manifestation ajuma yi yi xew ci ajuma yi weesu te ñu mu ngi gën a màgg rek di gën a yaatu ba yàlla def sax e, naxaruñu lool mu am ay bàcc bakkan ñu ci rot loolu xëy na mënoon bañ a am waaye dañ lu ñu séntu woon itam la ndax li xew Mali mu ngi mel ni dañ ko e, état malien dañ def ko xaw a négligé bi mu commencé ba léegi bon xam nga man e, waruma toog di critiquer état mm. amu ci droit waaye nag dafa waxuma sax ay ay ay mbax na wax fii man je en un en un kon lu xew Afrique euh, suma euh, euh, mun na ma naqar mun na mun na mun na laal sama parce que li xew Bamako li xew Mali depuis 2012 ñu ngi koy bay muy dem muy dem muy dem di gën a grave di gën ñi ñi di di reyante même armée malien di rey ñu ñu jël benn population ethniquement ethniquement ciblé ko ñu ne ñii c'est des terroristes hmm. mooy pël yi ñii moom pël boo gisee terroriste la su dul terroriste te itam euh, moom Amadou Ba na fa jël ay kon nañ leen rey ci village des villages paisibles des gens non seulement qui ne sont pas armés mais qui sont civils musuma dégg fo armée Mali confronté Amadou Koufa avec ses avec ses hommes jamais hmm. il tombe seulement sur les villages ça c'est injuste moo tax cette injustice la et cette frustration qu'elle a créée moo tax ñu ne centre euh, Mali bi le le état bi daf ko négligé bi mu ko négligé affaire yi di gën a ba dina gën a bon di gën a yàqu ba mu laal itam Burkina Faso ba mu laal itam Niger te fekk ñoo bokk euh, frontière yi foofu mm-hmm. ci zone est Mali bi xam mu ngi mu ngi gën a graaw mm-hmm. te bi muy gën a graaw li ci li ci doy waar euh, soldaaru yeneen xeet yi yeneen yeneen réew bi wala yeneen institut ñoo gën a bari G5 Sahel fii MINUSMA fële force Barkhane française fii FAMA fii nii ak naa te état yi boole ci créer seen milice populaire pour di dem di rey ñeneen ñeneen ethnie muy Dana Masagu muy le le le Kolgowego bu bu bu Burkina yow nag nga mën a yore armée au lieu nga dooleel ko nga def ko comme Tabitha Blog a dit ci conférence par exemple mardi bële Tabitha Blog Mali ci son président ki ko jiite Abdou Sow ne ñun lu ñu xam ci armée mooy armée républicaine bi nga xam ne day day tëddee njaaxaan. di aar askan wi mu aar askan wi aar ñëpp suñu la joxe doole surtout après la leur conférence de Pau là avec euh, avec Macron ak yooyu ah, ñu ne léegi on va renforcer les les armées là suñ leen renforcer jox leen ay matuwaay ak jox ay ay ay ay ay ay ngandaay mais dem leen def devant ñëpp. bu leen choisir ñii bàyyi ñële te loolu la ñuy def ba ba Nations Unies commencé wax di wax ne yéen a ngi def ay des exécutions extrajudiciaires ci pël yi te tegu leen ko fen hmm. moo tax Macron ñëw Mauritanie di wax ne way way pël ne sont pas ne sont ennemis de personne mais ça kooku amul solo c'est ay caaxaan la hmm. li waroon am mooy tere li am Mali tey tey nag Mali peuple bi yëpp la du pël. du affaire bi du pël ak dogo. Mm. c'est question de crise nationale du pays et de toute la sous-région donc buuma bi nga xam ne ñoom Mahmoud Kufa moo fa euh, dëgg man am ko astaghfirullah ñoom ñoom Mahmoud Dicko ak i ak ñeneen ak ñeneen M5 ñoom ñëpp ay pël ay dogon ay ONG ay parti ay syndicat ay étudiants ay leader pël tout le monde est c'est le peuple malien dans sa totalité dans tous ces segments ñoom ñëpp ñoo bokk ñooñu nag wax dëgg yàlla nañu moytu nañu war a xam ne baatu askan baatu yàlla la yàgg nañ ko wax askan bépp su dajee mu ne la ñu bëgg parce que lii xewoon na fi yéen ñu gàtt xel vingt six mars quatre vingt onze su Moussa Traoré lan moo amoon du lu mel nii hmm. fan gouvernement Mali mu ngi négligé bay nit ñi di di tàccu daan amasagu di leen defar ay kii di jox ay armes de guerre ñu dem di rey léegi ba ba léegi reyante bi euh, nekk na que réciproque jihadiste yi ñoom tamit rey ay dogo lan moo ko jar te du mujj fenn parce que Mali kenn du ko xaar ñaar du mujj fenn. Mm-hmm. dara dina dara dina bari mm-hmm. ñooñu Mali day nekk Mali. léegi léegi tey ñoom mhm. lii euh, Mahmoud ko ak ñi mu àndal sumb professeur Fary Silate Ka ci sa xalaat fan la mën a teere ndax gis nañu ne moom woote na sax euh, ngir euh, ñu ànd ak dal mais teewul manifestation yi ñu ngi wéy niki noonu itam président IBK ci boppam Ibrahima Boubacar Keïta ngir dalal leen wax na ne dina seeyal waxee doon cour constitutionnel bi conseil mais ba léegi taxul nit yi calmé wu kon mbir mi fan la mën a teere si sa gis-gis ci sama gis-gis ni muy soo gisee léegi mouvement bi mu ngi du du a gis mu ngi am doole dem ci kaw mm-hmm, mm-hmm. te pourtant de mouvement jàmm la dafa am dem ay ay débordement rek parce que su te kon mouvement ay kon Mali tas mm-hmm. kon tey kenn du nelaw Bamako mais mouvement jàmm la ci lañ loolu la woo te plus mouvement maa ngi dem ci kaw plus nguur gaa ngi dem ci suuf kon suma gis-gis mooy EBK dafa waroon jàpp mënatul yore réew mi. mu bàyyi. ah ah non nangu d'abord li mënatu ko yore. d'accord su ko nangoo rek su waxtaanee ak ñi def dialogue inclusif mën a waxtaan ak ñëpp. Hmm. te te te mu nekk jàmm amul coup d'état amul dara nañu wax ne léegi nañu toog. parti yi nañu toog ñu bàyyi ko mu yeggali mandaawam xëy na ñu ah, def. waaw waaw waaw xam ne ñëpp ciy dugal seen loxo. waaw waaw ñëpp ñëpp waaw loolu mën a nekk am am kooku moom du ma ci sori quoi du ma ci mm. sori l'électrique mandat ñu ne l'histoire de mandat lii mooy rey Afrique mm. ah, les Africains ne pensent qu'à des mandats ça c'est des nullités nañu seet ñii di dee tous les matins ils sont plus importants que les mandats présidentiels mm-hmm. c'est ça il faut qu'ils aillent vite vers un dialogue inclusif ñu ñu waxtaan waxtaan te te su doon suma saawu sax ñu fexe ñoom ñëpp ba Ah, ah, Soumaïla Cissé mu dellu Mali ànd ak parti moom mu bokk ci moom comme ça Mali bi yëpp bokk toog waxtaan. Mm. suñu waxtaanee mun nañ dem élection par exemple anticipé mun nañ def gouvernement de transition mun nañ def gouvernement du ñoo ñoo xam. mais mm. na jàmm am rek mais su jàmm bi amee nag li koy tax a dal mu samp mooy ñu ate ñi doon tooñ. di rey ñi ñi ci erreur hmm. kooku moom impunité suñ ko bàyyee duñu am jàmm ilaa yawmi din du hmm. mën a nekk deuxièmement nañu def une commission internationale mu enquêté ci ci ci affaire Mali et africaine lan la ñu xaar wala def hmm. nañu yëngatu ñoom tam ngir yàlla ñook ah. waaw bala ñuy ñëw ci ñu africaine euh, yaa ngi junj sànq kaawu Soumaïla Cissé di leader opposition bi nga xam ne ba muy campagne ba léegi dañ ko teg loxo kenn xamul fu mu nekk ñi mu àndaloon bàyyi nañu leen mais moom ba léegi mu ngi des foofu kaawu Soumaïla Cissé euh, naka lañu ko mun a comprendre ndax tey jaadu na ñu xalaat ne nguur gi moo ko teg loxo ndax contexte bi nga xam ne si la nekkoon euh, bi ñu koy gëj a gis. Ah, doy na ñaari ñaari ñaar man ñaari ñaari ñaari ñaari misaal laa ci gis doy waar mm-hmm. benn lu lu taxoon ñu nangoo def élection législative alors que moitié Mali mënuñu wote te l'un des leaders principaux mu ngi demoon campagne pour le législatives yu téye ko foofu moo ko indi tam kooku xel mën na ko xel du ko nangu Sénégal xam Sénégal dana jóg duñ mm. moitié Sénégal mënuñu wote leader principal de ñu ñu téye ko ñu ne nañu def organisation rek ñu nag def élection teg moo tax suñu demee seyal tey conseil constitutionnel lu war lu war la hmm. parce que def jaaruñu yoon ci sama sama gis-gis deuxièmement est-ce que mën nañu wax ne nguur geek tey wala téye ko man du mu dugg ci loolu waaye nag maa ngi dégg nguur gi di wax euh, président IBK que je respecte beaucoup di wax waaw xam nañ fan la nekk léegi kay ah depuis lii mu génn ñu ngi waxtaan nii ak naa mais dara sotteegul xam nga loolu day tey na xel mm-hmm. donc man fu la a yem mais du yoon fi mu nekk nii li xew Mali ñu war a waxtaan ñoom ñëpp lu ñu mënoon ñaan yàlla mooy ñu def def lu ne lu ñu mën ci dialogue ci paix pour que Soumaïla Cissé dellu toog ci ji bopp partem bokk ci ñi war a waxtaan ci avril Mali parce que moom tam ak ñooñam ci partem am nañ baat ci biir luy indi jàmm ci Mali ak sous région africaine mhm. ñu ñëw nag ci tekkaaralu président africain yi d' abord réew yi nga xam ne ñoo gën a jege Mali ñëpp kenn déggu leen ci Sénégal rawatina ak surtout Union africaine nga xam ni moo jaboote daanaka réew yi nekk euh, ci Afrique coow lu tool nii nga xam ne bu tàqee xëy na réew yi ci mucc du bari bu fekkee sax dina am ñu ci rëcc euh, mm. ñoom ñu ne tekk yow tekkaaral googu euh, noo ko jàngate ñun dañ ko naqarlu ñun ñun tamit plagu Sénégal. depuis 2017 suñu déclaration yëpp ak suñu point de presse dañ ne lu tax lii di xew Mali di xew Union africaine ak CEDEAO di noppi ñu ne ñu ngi interpellé chef d' état africain yi waxuma rek le les les chef d' état wu réew ñu ñu Union africaine ci boppam. xam nga moom amoon na fi ay at sax am bëggoon def fi benn force de réaction rapide ñaag naa hmm. bon te gis nga fii. a ñëw na fii bi bi am bi problème. ak intervention ah ah waaw ak feneen ak Mali moom dañ ne tekk tekk tekk noppi loolu daf ñuy jaaxal ñun ñu ñun ci tab déploie ko te man mii tam en tant que africain doomu Afrique nekk doomu Sénégal daf ma jaaxal mm-hmm. ndax Union africaine moo waroon jëkk nekk suñu yaakaar mos naa ko wax ci antenne boobu. Mm-hmm. ma ne man gëmuma ay forum ak yooyu fii ak faa déedéet kooku du régler problème Mali lii régler problème Mali key mooy Mali ci biiram après ñu jël ay décision yi nga xam ne décision yu am solo yenn yi mooy le caractère inclusif ñu wootee jigéen ñi nguur gi te le marabo yi euh, syndicat yi parti yi ñëpp ñu waxtaan seen bopp ci réew waaw deuxièmement ñu di éviter de recourir à des milices gouvernementaux Euh, li ñu li ñu li état Mali def ci Dan Amasabo c'est une erreur monumentale hmm. Dan Amasabo du moo créé boppam état Mali moo créé kooku mën naa ko wax wax parce que dëgg la hmm. go les col col de Burkina ñoom le Burkina qui créé c'est ethnique hmm. et il vise une ethnie dans leur peuple kooku mënul nekk et puis gouvernement Union africaine dafa war a xam ni fii fii ak état ñu ga am état yi xam ne état ethniciste ou qui encourage les et tribaux du ñu am jàmm ila yow mi dina mënul nekk. te loolu moo am Mali. moo am Mali moo am Burkina moo am feneen moo amul Mauritanie moo am feneen fi mu dudd. Hmm. xam nga ko hmm. ñëpp xam nañu état africain yi li def moo dul yoon état yi ay état yu fragile lañ te état yi xeet yi ñooy sen brique. xam nga na ngay na ngay def miir. Mhm. sooy tabax da teg mi teg brique teg brique teg brique. Mhm. teg mortier mu yooyu su amee ay xeet. mel ni suñu état colonie yi nga xam ne démb rek lañu sosu amuñu sax juróom téeméeri at. Mhm. ah am na ay xeet am na ay langue am na ay divers diversité culturelle linguistique ethnique communautaire mais kooku da koy tabax. doo ko tasaare. et puis doo topp itam ay tubaab ñu lay jox euh, yoon. pour nga tasaaree ko mhm. pour nga toog ci sa siège folu wala pour nga def li suba yi bëgg nga def kooku gàcce li ci Afrique mhm. man moom moom laa jàpp mhm. te bi bi ñu amee indépendance ba léegi képp bëgg ku fi bëgg wax dëgg ci de ta africain wala nga def dëgg ñu rey la ànd ak tubaab yi rey faat la kooku Afrique war na weesu foofu nag léegi euh, Fatou Fatou waaw dëgg la jërëjëf en tout cas ñun ñun tamit loolu la ñu gëm ñun na Afrique boole seen i doom soo dëkkee soo soo jiitee réew da ngay tëddee njaaxaan boole doomu réew yëpp yemale sa armée itam na nekk armée républicaine qui défend l'intégrité des des des et de leurs biens sans distinction de ethnie wala race wala wala wala wala wala wala tribu. ku jaaxle mën a yaakaar armée. Oh, waaw ku voilà. jërëjëf tout dit ku jaaxle a yaakaar armée. Mhm. waa armée buy buy rey ñi bay ñi. kooku du armée. jërëjëf professeur Fary Silate Ka ñu ngi lay gërëm amoon nañu lool dalal la ci matinalu réew mi FM di la jaajëfal mm. bu baax. jërëjëf jërëjëf.